sant di nuyu ñëpp commencé ko ci kilifa dëkk bi di xalif général euh, murit euh, sëñ Mountakha Mbacké euh, di ñu nuyu njaboot yëpp njabootam yëpp di nuyu taalibe yi di nuyu jullit ñëpp ñu waa Sénégal yëpp di am mbégte teewati ci bés yu tedd yi ak li ñuy dëgmalu tedd yi muy di màggal yi nga xam ne jarasuñu koy présenté ci diine gi ci islam muy Cheikh Khadim euh, buñ ñëwaat nag defe naa boo seetee màggalu daaw gi sax lañu bëri gënoon a bëri kilifa yi ndax def nañ ci ñaari fan yoo xam ne même tuuti tuuti am na fukki kilifa yoo xam ne seetoon nañu ren peut-être euh, mbas mi moo ko tax niñ ko niñ ko boo ko tàmmee woon di taw yi mënuñu ko taawee noonu waaye eh, dañoo am suñuy wëllëre tam ci biir Touba am ay kilifa yoo xam ne dañoo bëggal seen bopp boole ñu seen bopp ci lépp ak nu mu gàtt gàtt gàtt mënuñoo ñàkk dem ziare ji leen moo tax ñu def loolu gannaaw bi ñu ziare xalif bi sëñ Mountakha fi yàgg ànd ñu daal di dem seeti yenn ci ay kilifa yoo xam ne mënuñu mënuñu ko woon jàng gën nañoo gudd loolu gën nañoo bëri loolu waaye mbir mi ni mu demee may peut lépp ñu def ko ci bésu tey bi kon mbégte rek ak sant yàlla ak manifester suñu satisfaction ndax fépp fu ñu dugg dañoo dañoo am njëg-njëg ni suñu kër la dugg ñu jox ñu it euh, place njaboot kon ñu ngi sant yàlla bu baax a baax di remercier it euh, population Touba yëpp ci accueil bi di ñaan yàlla màggal gi euh, doon euh, ci màggal yu gën a neex ñu musa a def Euh, yàlla may ñu it ñu dugg ci ci jàmm génn ci ci jàmm euh, yàlla yàlla musal ñu ci dog-dog yeeg accident yeeg ñoom seen mbas mi it yàlla bu ñu ci nit ñi doon ragal bi yàlla bu ñu ko gis génn ci euh, waxuma la sax mbax mbas mi bañ a tasaaroo waaye ñu génn ci mbas mi jóge fi defal waaw loolu moom <laughs> Eh, xam nga ñu suñu ñëwee ci cadre màggal yi ñoom seen eh, événement religieux yi dañuy xaw a trop ci wax politique yu demee noonu ci gàttal daal li mu wax mooy ceem réew boo xam ne état moo ci nekk dafa bokk ci responsabilité état mooy mu fexe ba li ñuy wax les service sociaux de base muy ndox di courant di paju eh, eh, wala njàng mi yooyu nga xam ne dañ koy tuddee les services sociaux de base citoyen bu ne fu mu ne war cee am wàllam kon problème ndox warul woon posé wu Sénégal 60 ans après l'indépendance te jàpp naa ne bu ñu defoon li ñu war a def eh, manqué wuñu ndox peut-être problème investissement la li ñu war a def pour nit ñi fu ñu munti nekk rek ñu jot ci ndox waaye ñu jot ci ndox de qualité waaye ñu jox jot ko it ci njëg bu yomb loolu moom defe naa responsabilité état la te it euh, suñu jëloon matuwaay yi def ci liñ ci war a def ci koppar it li ñu def ba ndakaaru am ndox bu jaar yoon ndakaaru gën a sori defe naa suñ ko defoon Touba am ndox boo xam ne tey problème bi du posé wu bon yëg-yëg bi dafa leer parce que man yàlla daf ma nattoo ma yor massification bi donc base ba bi pratiquement man lañ ko dénk ci biir parti donc lépp lu ñuy def ci suñu kuréel yi ñuy taxawal lu ci nekk ay kuréel yoo xamee ne bi nii yu officiel la que parti bi da koy fàttali chaque jour day fàttali que ni Pastef ay cellules la am ay section ay coordination ak comité de pilotage ak ay mouvement mouvement yi ñeent la muy bu xale yi bu jigéen ñi bu enseignant yi ak bu cadre yi loolu rek la am donc képp koo xam ne génn nga fi di wanewu wala ngay utiliser image président bi wala ci leneen di ko dugal ci wàllu politique di ko boole diine yaa ngi tooñ te jàpp nañ ñu bokkoo suñu képp koo xam ne aussi comme li xew léegi ñu gis ko ay nit ñoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee xamuñu lu ñu doon parti bi identifié wu leen xamu leen xamuñu sax ndax dañ leen yebal ñu xëy rek ñëpp ak ba mu neex leen jël seen micro commencé di wax di saaga ñun dañoo jàpp ni képp ku wax lu ñaaw nitu diine yi ñun nga ko njëkk a wax président Ousmane Sonko nga ko njëkk a wax parce que moom nitu diine nit ku koo xam ne da nekk ci réseaux sociaux yi di wax donc ñooñu ñu ngi ñi nga xamal Sénégalais yi ne ñooñu bokkuñu Pastef mmh. te képp ku koy def aussi bu fekkee da jàpp ne Pastef nga bokk bokkoo ci mmh. parce que Pastef yar la digale mmh. wax ju rafet saagaloowul nit ñi xasloowul ay sëriñu diine loolu duñ ci transiger képp kuñ ci ràññee nga nekk suñu dañu ko jëflante yow fi yoon war a jaar nañ ko jaar mm-hmm. képp koo xam ne aussi nit ñi dégg nañ mu ciy wax te ñu jotewuñ ko nañ xam ne kooku bokk ci Pastef